وجدت كلي بعبد وسكور ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaw wakkaanaa xande yi moom sëñ Moustapha li ma ciy wax rek mooy e, taxawaayam ci yoonu murit faaw ñu xam ko faaw murit itam xam maanaam mbir mu ne fañ ko war a teg ñu teg ko manam wakaana bokkul la qasida go xamne manam dang dang daf lay neex sop la nga sop ko sok diko jang dedet manam day farata ci am mourid damay faral di wax ne ni waka ni julli ni faatiya mel ci julli faatiyatul kitab, ni mel ci julli nga xamne genn julli munte wer mukk ca faatiya dikut nonu la wakaana khana alena nasrul mumina mel ci ab mourid ben mourid munta dem te àndul ak wakaana xal mënta ak mënta nekk wakaana mënta ñàkk mënta ñàkk farata la ci murit bu ne murit bu ne wakaana farata la ci yow nga di ko jàng baa nga di ko jànglu baa baax baa nga xam nooy def waaye wakaana mënta ñàkk mënta ñàkk euh, muy téere boo xam ne euh, sëriñ bi ni mu ko bindee noonu maanaam noonu la ko bëggee sëriñ Tuubaa da ko daan jàng bu baax a baax xam nga sëriñ Tuubaa xasida gu mu bëgg ba sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou ñëw fa ziare si ko muy jamook ñoom wa kanaaxan loolu kéemaan la nga xam ne sëriñ bi day wax aw bayit sëriñ Modou Sa wax bayit sëriñ Fàllu wax bayit ba ca topp bi waxaat bayit ba nga xam ne wakaana bi ñoom ñett noonu lañ ko jànge bu kii waxee bayit bi kii wax bayit bi kii wax bayit wee eh, na bés boo xam ne sëriñ Modou Moustapha mu tedd mu baax mi dafa ànd ak rakam ju tedd jii di Cheikh Ahmadoul Fadal ak sëñ taalibe bu baax bi di sëriñ Moustapha si xasaa it mu sëriñ Touba ñew daru salam, ci serigne Modou Mamoun gane ci ko serigne Moustapha si mo ñu ko nettali nee na jataay ba Cheikh Modou Moustapha mo tok ci kaw lal bi serigne fallu tok ci ak basan gu ñu lal tek ci mbajj mu tok ci mbajj mo serigne Modou Mamoun tok ci basan gu ñu lal ci teguñu ci dara man ma tok ci suuf ñu andil ma yéré warga yi ma di len wargal ñom ñet ñuy waxtaan nee na ñuy waxtaan ci sëriñ bi ba yàgg ñu dugg ci xaside yi di waxtaan ci xaside yi ba yàgg ñu dugg ci wakaana nee na di waxtaan ci wakaana xan di waxtaan ci wakaana ba àgg ci ab xaa salaamay karim yi samad yi ala nabi wasilati muhammad yi ala nabi wasilati muhammad yi ab xaa salaamay karim yi samad yi sëñ Modou Moussa ne tekk sëñ Fallou na tekk sëñ Modou Mamoun ne tekk ñoom ñett ñu xoolante xool ma kenn jàllul nee na ma xam ne ci sama xel seen waxtaan wi li tax munta jall dañuy egg dañuy egg fo xamni ne waruma koo dégg man len ah mum de xamna day melni ma bëgg ma bëgg fat waxtaan wi ma bëgg su len soobee ma genn ngeen agalé su len doyeet ma tok ngeen agalé waye lepp lu ngeen fi wax mu dëggu ci sama nopp bi man Moustapha képp ku ko déggaat ci man danga ma fekk ci biir bammel waaye du ma ko nettali ku yàlla bi bind mukk loolu mën naa leen ko waatal ci seen barke baay lépp lu ma déggee ci seen waxtaan wii képp ku ko déggwaat ci man danga maa fekk ci biir bàmmeel waaye ku ma fekkul ci bàmmeel du ma la ko nettali bu kon nag bu leen soo bu ma leen doyee man ngeen wax sëñ saa nee na soog a noyyi waaye nee nañ wax nañ fa loo xam ne su ma ko sañoon wax bu ma ko waxee murit yëpp danañ teg xasida yëpp ci jàpp ci kaanaaxam xan ci ko boole dara waaye nag junj doy na borom xel kon loolu rek doy naa doy naa doy naa doy naa soññeeti di xaside koo xam ne sëriñ bi daal ni mu ko bind noonu la ko bëggee sëriñ Fallou sëñ Modou Bousso Dieng nee nañu sëriñ Fallou nee na leen nee na ko moom sëñ Modou ne ko fii nga toll ba ñëw di ma diis sa wopp de mos naa fee toll dem diis ko ku tedd gi keroog wa kaana la ma jox ne ma Fallou la na ko jàpp diir bu gàtt dootoo soxla ndimbalal kenn ci ku bëgg ku soxlaa dimbal dina ñëw ci yow. sëñ Modou Seck nee na keroog bi ma ko sëñ Fallu waxee joxe wax ma ko ma dox ci ab diir ca laa gis la ma wax moo tax sama daara yëpp dama leen sant nañu jàng Wakana xam kon Wakana xam na ko yal nañu sëñ Tuubaa génn ci barke xasida yi على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام سل وسل وتقبل الكلام على قارئ ذي الهروب بما يفوق الظن من معروف للناس حروف قلب الرباب يا من كفاه إلى الغرور والنباب ولي يا رحمن يا رحيم يا عبدك الخديم ذا زلم مسلما على مزحزه القلاب هجاك عبدك الخديم ذا زلم مسلما على مزحزه القلاب هجاك عبدك الخديم ذا زلم